ملكني yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa bokki jullit yi bokki taalibe yi noo ngi yëkkati sunu kàddu ci turu sëriñ Ousmane Mbacke Gaynde Fatma mu teewal fi kilifa penc mi di sëriñ Ahmadul Muxtaar ci ndigal Cheikh Mouhamadul Muntaka mi nekk ci bopp yoon wi sëñ Ousmane wax ni mi ngi leen di jottali kàddu yu jóge ci sëriñ Ahmadul Muxtaar muy kàddu yu sant ak ngërëm ak ñaan ci taxawaay ak yitte ji ngeen def ci ndigal li nga xamante ne nii Cheikh Mouhamadul Muntaka moo ko joxe woon nee na xolam sedd na bu baax a baax yaakaaram itam gën naa feddaliku ci taxawaay yi nga xamante ne nii kuréel yi séq liggéey bi muy fédération Mafatihul Bichri ak fédération Safinatul Aman Kéré Mbay ak fédération Majmahun Nurayni mu ñaari guddi Ndakaaru ak fédération des groupements religieux et culturels des disciples de Cheikh Ahmadou Bamba ñu gën leen a miin ci wilaya yi ci ñemente gi ngeen ñemente ci nangoo ànd dëggale ko waxi sëriñ bi ndax ku gis Cheikh Mouhamadul Mountakha ak ni muy doxe xam ne li ko ñor mooy taalibe yi ànd doon benn te loolu dëggal ñaanu Sëñ Tuubaa la yaa rabbi ij'alil muridina maa fi xisnikal xasini wa samla ijmaa sëriñ bi nee na mi ngi ñaan ci sunu borom ànd boobu bi yàlla na leen ci suñu borom defal lu kawe seen jot barakat Cheikhul Khadim di sant itam ci taxawaay yi ci nangoo jëfe ndigalul sëriñ bi nuy rafet njort bu baax a baax nag ni nun def nañ suñ jëfi jaam mooy ab jaam lim man lépp def nañ ko te ab jaam du wàcc yàlla des nuy rafet njort bu baax baax ni li doon yéene Cheikh Mouhamadul taxaa moo ko xam waaye rafet na njort ni suñ borom dana ko ci defal lu kawe njortam ndax lim nu doon defloo mooy ñaan yàlla ci kaw sant ko ak di ko tudd yàlla nag dara waru ko waaye moo warlul ci boppam ni su ngeen ma dee tudd danaa leen fàttaliku tudd yàlla dara jiituwu ci alxuraan moo waxe itam ni su ngeen ma woo danaa leen wuyu adduuni astajib lakum moo waxit ni bu ngeen santee ma dolli leen te lii ñett yooyu rek la doon firndeel ñu defe ko nag fii ci Touba defe ko fii ci daarul quddus li rabbil alamina mursilu ahmada sëñ Touba yi doo xam ne duaa uman bi yatawassala mujab li nuurihi lazi yusaxsihul hijab ni képp ku ñaan yàlla te def tawassul ci man suñ borom dana nangu ñaan la liñ si doon def lépp génnul Sëñ Tuubaa kon sëñ bi nee na nu maase yeesalaat suñu pas-pas te gën a rafet njot te gën a feddiliwaat suñuy laxasaay te xam ni kii fi nekkal Sëñ Tuubaa bu amee ak bëggam noonu nu am sunu bëgg Cheikh Ibra Fall nag mos naa laaj sëñ yaaram mbay ni ko su ngeen amee bëgg nu ngeen koy faje sëñ yaaram ni ko suñ bëggee lu mel ni mbubb dañuy wut xaalis dem ca jabar xool ba gis tiisi bu nu neex ñu xotti ca meetar yu nu jot dem ca téer ba mu dogal na ko nu sol ko Cheikh Ibra Fall ni ko man wuute na ma ak yéen man bu ma amee bëgg damay bàyyi ba sëñ Bamba bëgg ma dugal sama bëgg ci biiru bëggam bu sëñ Bamba amee li mu bëgg ma am sama bëgg nun suñu bëgg dugal nañ ko ci biir bëggu Cheikh Mouhamadou Mountakha xamuñu lu mu ci jublu waaye lu mu ci jublu rek arrangé nañu ndax wóor nañu ni jaam ñi moom yàlla mi leen bind rek moo ko ci ëpp yërmande waaye ku yàlla ëppoo ko yërmande ci jaam ñi te wóor nañu itam ni Mouhamadul Mountakha ibnu Cheikhil Basir ma ngeen xamoon doonu ko Sëñ Tuubaa fi ne ndaa amul ndox ndoxum teen la yor ndaa amul ndox ndoxum teen la yor loolu ñi dégg danañ xam li may suñ borom nag sëriñ bi nag daa waxoon ni wasrif bi jaahil muntaqa lil umma ixaasatan fi ada wal xumma ñuy ñaan ci darajey turandoom woowee di seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak kii ñu ko tuddee tam nekk fi nekkal fi sëñ Tuubaa suñ borom faj suñuy aju ñun ñëpp loolu na koy ñaan te sëñ Tuubaa itam ñaanoon na suñu borom ni ko wahab liya nusra fii kullil bilad jumlatiha yaa xaaliqal asmaani wal biladi ni suñ borom maa ngi lay ñaan nga ñaay nga ñaay ci mbooleem réew yi nag ni bàyyi wut benn benn réew te ngañaalul suñ Tuubaa mooy lislaam ne ca kaw rek alkalimatullahi hiya al ulya ne ca kaw loolu dong mooy ngañaalul suñ Tuubaa te sëñ bi ñaanoon na ko suñ borom te suñ boroom moom lépp te wasaaxali kullama ahwa bila talabin sawqan bihi yastabinul juudu wal karam ni lépp loo xamante ni sama xel dem na ca suñ borom may na ma ko làtt ma koy ñaan kon sëñ bi nee na mi ngi leen di sant ci taxawaay di leen gërëm di ñaan suñ borom kii fi nekkal suñ Tuubaa yal na suñ borom wan kii maanu gudd fan ak mboolem bokk yi mu bokkal sëriñ bi di ñaanal itam taalibe yi ak wér ak tal ak fekke ak wërsëg wu yaatuwun mën a liggéeyal suñ Tuubaa barke bis bi ak li taxoon borom santaane ko ak penc mi ñu ko doon defe ak borom penc mi sëñ bi sant na gërëm na ñu ngi toog nag di dégluwaat ndigal te waaj wàccaay wu jekk bàyyi sunu xel ci ni ndigal rek la ñuy dunde sëñ bay faaloo nag da daan wax ni baara njinne bu goree ku ko nib yana ngi dalaa war a neexal baara njinne su fekkee gore na ku ko ni ab yana ngi dalaa war a neexal mbax moom ci ab yan lay dund ab taalibe itam ci ndigal képp lay dund noonu bu sëñ bi joxewul ndigal ñoo waroon a cotiser suñu xaalis neexale ko ngir jot ci moom ndigal ndax lépp lu mu ne wax yàlla rek a tax te waxal na ko boppam ni ku bëgg a baax xoolal ci man te ni du ngeen gis dara lu may sëñ ngeen di gis ni ku bëggut a baax nag yaa kon nan góorgóorlu bu baax a baax te xam ni am nañ kilifa gu mat kilifa te nangu na noo jabootee kon li ci des doxa ci des kon liñ ciy tëje mooy nañ jël sëñ Bay Fallou njaay la mu waxoon mag ña dañoo toog di waxtaane njàmbaaru Cheikh Ibra Fall sëñ Bay Fallou la mu duggee ca wax ja dañ leen course boo fekkiwut mënoo caa jël pee ñu ni waaw mu ni waaye course bii Babacar fekki bëggu ci deuxième sëñ mu taxa li mu nuy defloo mooy la xewoon ca yoon wa démb mag ñi àndoon ak Sëñ Tuubaa lii rek la leen sëñ bi doon defal mosuñoo am jot mosuñoo am temps xamuñu guddi na xamuñu naaj na sëriñ bi rek la déglu lu mu bëgg ña nga ci foofu rek la ñu jaarale parce que dégg na yoon wi xam na ko te dund na ko jaamub yàlla la bu nangu am jaam ab jullit la bu rafetal ak njullitam taalib bi Sëñ Tuubaa la bu ko gëm te doyloo ko ku yéene ñëpp jàmm la wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërë ngeen jëf ñëpp mën nañoo tàllal loxo sëriñ bi ñaan ملكني الجامع يوم الجمعة ما لي وحدي اختاره وجمعه